abi sifflé na ci diggante nëb ak bu ndaw nëb cokkaas na léegi dóor na eh nëb baatu ko dóomu daanu nëb bu daw na jël nëb nëb wasu na <laughs> nëb ak bu ndaw bu na nëb ak bu ndaw bu na léegi dóoraat na moom bu ndaw. bu ndaw ak nëb na ba ñëwoon ginnaaw nëb door na ma ngay door <laughs> eh, bu ndaw bàyyi xel nëb bu ndaw wàcc na bu ndaw a ngay plaqué jël eh, bu ndaw ak nëb bu ndaw defal ndànk bu ndaw defal ndànk bu nëb ndaw bu ndaw. bu nëb ak ndaw bu ndaw moo ñëwoon ginnaaw nëb la ñu jaakaar lool lu ko nëb di def wala bu ndaw lu mu koy def kii lu muy def looy def looy def sara say da koy dagg ah sara say déedéet yow fas bu nëpp ak bu ndaw nëpp ak bu ndaw nëpp a ngay dóor bu yàggee léegi buntu feeñ nëb ak bu ndaw ee eh, nëb nëb moytu bu ndaw nëb bu ndaw la muy liggéey bu sottee arrêté abit arrêté na abit atte na bu ndaw dafa mel ni dafa yàbbi woon protège dent ba déggal ma bu ànd bi xamal ma nëb <laughs> nëb ak bu ndaw eh. eh! <laughs> nëb nëb encaissé na nëb encaissé na sëlmu. eh bu ndaw mi affaire la de. bu nëb ak bu ndaw. jël na tànk ba. bu ndaw jël na ko nëb lu muy def nii. nëpp ak mu ndaw nëpp ak mu ndaw daa mel ni day yàpp bëgg yàpp protestant ba boo ko defaatee arbitre bi àtte nëpp ak bu nëb ak bu ndaw bu ndaw sengoor yaa ngay lang caxabal na ko bu ndaw caxabal na ko tere nga dee ee jël amagul bu nëb nëb nëb nga koy mbot nëb nëb nëb takk bu ndaw takk na ko nëb de est dina ca génn nëb que dina ca génn moo nga tegal 16 jël amagul bu ndaw daan na nëb bu ndaw daan na nëb bu ndaw daal na nëb. waaw bu ndaw daal na ko. tournée fii tournée fii.